sëñ Aziz gënoon a jege sëñ Baara bari na itam loo xam ne moom la ko daan yónni waaye da koo waxoon na ko Serigne Diop de da nga gis sa sëtu sët moo tax dund na ba mu 1991 ma ku sëñ Baara daan yónni nga dund ba 1991 yàgg nga fi bii bi da ko cee wax na ko Serigne Diop na nga lu gaaraas ba ak baraagub dénk ba. te fab ko ci woto bi indil ma ko Touba waande bu ko kenn yëg la ca la ca yéeme nag mooy daf ko wax ne ko yére yëg ma doon wax fa taax ma danaa ko fab si te liñ jàpp mooy eh, eh, danaa ko fab si waande damay bañ kenn yëg ko ndax dafa am luy bëgg a xew barak bii nag mooy biñ ko denc Louga lañ ko jële teg ko ci oto bi indi ko Touba Touba mun na lay mbàkk jor ñu indi ko ci mooy lettre bi mujj bind moo tax sëñ bi ne nañ ko leeral sëriñ bi dafa am magam joo xam ne xam nga sëñ Abdou Xaadir si sëñ Baara di ko leeral sëñ Mamor Pakala way sëñ bi dafa waxoon ne bu amee doom ju góor daf koy tudde sëñ Baara da koy tudde sëñ Baara moom ñu tudd par Sëñ Abdou Khadir ñëw fa comme doomu Sëñ Tuubaa la ñemewu koo wax ne ko tuddee ko kenn waaye keroog bu Sëñ Abdou xaajar tuddee ba noppi dana tuddee naa ko Mouhamad Lamine Baara sama mag ju baax ja loolu la wax keroog lépp ko bëggoon a tuddee non non sëñ Ba maam laay natt li sax ah Lamine la woon Laminum sëñ Mamour Pakala sëñ Mamour dafa waxoon ne bu amee doom ju góor da koy tudd sëñ Baara bi mu amee doom ju góor fas ko yéene tudd sëñ Baara far sëñ Abdou Khadir ñëw fa bi sëñ Abdou Khadir ñëwee war koo tudd ñemewu koo jox tur ndax doomi sëñ Tuubaa kenn du leen jox tur bi sëñ Abdou Khadir tuddee nag dafa wax ne tuddee naa ko Mouhamadou Lamine Baara sama mag ju baax ji loolu bokki taalibe yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare xam naa nag nun fi ñuy tàmbalee mooy dañuy yëkkati nuyoo bi yépp rekk teg ko ci loxo sëriñ abdu Aziz mii mu tegal nu ko ci mboolem ku ko yelloo sëñ bi waa kër sëriñ baare yi ñoo doon indi seenub siyaar mooy li nga xam ne moo jiitu ci sunuy wax foofu it du jar nu fiy sori ndax sëriñ Modou Baare Jóob a ngi toog sëriñ Baare Njaay a nga nee toog sëñ Mbàkke Madina mii tey lan mas a ci sab jataay ñu jokk jàkkaarloo maak moom baayam laa yaakaar àdduna ak alaaxira sëñ Moustapha ay kóllëre it dugg fi yu baree bari ñu koy sante yàlla muy ñii nga xam ne ñoo nekk ci suñ gannaaw dañuy yëkkati nuyoo boobu jox ko sëriñ Fàllu ndaxte it mboolem ñi fi nekk boo limee tur dangay ngay juum waaye nag am na jëmm joo xam ne mënuñu koo bañ a tudd muy sëriñ Xalil Loome ab jataay nag bu fa kër sëriñ Daam Abdourahman nekkee waa kër sëriñ Touba yépp mën nga ne ñu ngi fi ndax kenn kum ci manti doon bu fekkee ne sëriñ ndaam jàngalu la it jaar nga ca ron daqaar googee am baat ya doo fa yaa yoo fa doon laaj wala baat yu yu ñu la fa doon jox ma xoolit ni sëñ war ngaa sant yàlla bu baax ndax lu tax as gor as gor rekk la mën a doon baax mun la weesu baax ñaari ñi la séq ni ma koy waxe boo yemoon ci sëñ Abdou Xaadir mu doy sëkk waaye dangaa laal ci sëñ Abdou Khadir laal ci sëñ Baara mboolem nag li nekk ci biir kër sëriñ Baara boo xoolee ci biir kër sëñ Abdou Khadir lépp a ngi ci biir kër sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir dara am génnul sëriñ Touba waaye loola def fi dul xaj fii ndax du ma conférencier sëriñ Baara moomu it nag nga xam ni moom la la nit ñépp jàppe di la ko xoole dafay am loo xam ne yow mënoo koo waxal sa bopp waaye nun ña ko fekke woon ñoo la koy waxal lu ci manti doon lu ne lu ma in lum ca manti doon danaa ci indi seere seere sa mooy ci sëriñ xaadim awa ba laay tàmbalee ba may gone gu tuuti laa ko xam muy jóge Kébémer di dem Màngara wala Daaru Nahim jaar kër ma jooje di fa fekk sama baay mu am kóllëre gum séqoon ak sama baay moo sëriñ seex coro ma nekkoon daaru nahim kii it daana nekk ca oto boobee nekk ci gannaaw sëñ xaadim ndax sëñ xaadim fu naar yi ma a nekk muy jéemul ba ba ngay dem njaañ ba ba ngay dem gàdduyal naameen yëru ndànk fenn fu ne sëñ xaadim ba tax na kon xam naa fa lu bari ndax Kébémer googee fa laa jànge oto fa laa yaroo te yàqoowuma fa te Kébémer képp koo xam ne fa nga jànge oto wala fa nga yaroo boo amut ñaanu kilifa boo watul da nga yàqu da nga sànku kon sant nañ la bu baax Malick Ndongo da ko wax léegi ne ku xamoon jataay bii jataay bi da du tey nan xool ban ko tàmbalee ca Préal Pino ak léegi kër gi biñ ko jëndee ak léegi nañ xool distance boobu ak ba nga koy def Préal Pino ca mbaar ma moonte am na foo mënoon a jaar da waaye na nga xam ne naar yi moom dañ nañ kumpa ndax topp nañ la ci néegi ñax yi topp nañ la ci witnde wi topp nañ la ci gott bi topp nañ la ci àll bi fu ne wër nañ la fa waaye ana lan la ñuy gis ci yow sëñ Touba rek la ñuy gis ci yow sëñ Touba jooju ñuy gis ci yow nin ko mën a tudde kon noonu da ngay ndabul sëriñ tuubaa ni nga doone ndabul sëriñ Touba tilim mun la dugg ci yow bis bu tilim naroon a dugg ci yow ndab lañuy indi di ko teg sëriñ Touba koy randal teg fa leneen ndab kon nan santaat yàlla bu baax ma bëgg nag li nga xam ne ñoo fi daje tey jii sëriñ maam Cheikh Anta ngi nii waa waajuram a taxaw lépp taxaw te itam doom ju ne am na lu mu doon ca baayam waaye sët bu ne am na lu mu doon ca maamam ngeen bokk fi daje tey barke kenn du ko xeeb ndax yàllaa koy def ci nit làmmiñ way barkeel yàllaa ko xam waaye làmmiñu sëtu sëriñ Touba wala làmmiñu doomi sëriñ Touba yàlla barkeel na ko ndax jëmm jëla rus jëmmi sëriñ Touba ji ci boppam moom la sunu boroom bëgg ba nga xam ne lépp loo xam ne tudd nga ko sëriñ Touba tax bu dul woon dëgg sax sunu boroom dana la ca teral ndax niñ koy xamee mooy lan waxoon naa ko ca wala falu sëriñ Mourtala ba nga xam ne ca laa waxoon téere boobu kenn bisu gisagu kenn kenn tegugu ci bët waaye loolee mën na koo xool ne ko xottil na baayam kër yu rëy ci réew mi digle na fi jumaa bu soobee yàlla ndax nun réew mi bin fi nekkee 31 décembre 24 décembre lan lan daa def fu ñu nekkoon dañoo meloon nay kooba rek waaye bi nga xamee nag góor yàlla ñëw na fii ci réew mi lanu def lépp ñu nekk ca lépp kon ñaan leen te bu leen tàyyi nun nag li nga xam ni moom la ñuy ñaan muy mbooleem ñi nga xam ne ñoo di taalibe nekk ci biir réew mii muy réewum itali dañuy ñaan yal na àdduna bépp daje naan nan seeti mag ma ca Touba Kébémer sunu borom mën na ko yal na ko def waaye tey jii nag ñuy sàkku geneen ñaan ndax jam ye Cheikh Ahmadou Bamba bi dafa am liggéey bu ñu sémb liggéey bi fekke nga ko fekke yaat nga ko fekkeyaat nga ko fekkeyaat nga ko ñu bëgg cee yokkaat beneen liggéey liggéey boobee di lee ca buntu kër ga tab tubaab moomoon ko mu di essence te buñ ca taxawut wala amuñu ñaan boo liggéey ku mel ne man mii mën naa mën na koo jënd def fa baar ñii di fa naan ñenn ñi di fa màndi te kenn du ca man dara te comme gannaaw ci buntu kër Serigne Touba la nekk baar ba bu fa nekkoon nit ñay naan maan di intéressé wuñu waaye nun danañ dugg kër sëñ Touba ndax nun loola ñorunu ndax lu fa mënoon di nekk lu mu mënti doon buñ jëm see ci kër sëñ Touba nun duñ gis loola waaye kon nag ñaanal nu mu tàbbi ci sunuy loxo dugg ci biir liggéeyu sëriñ Touba bii sëñ bi am nañu it liggéey boo xam ne waa kër sëriñ Baara yi ñoo ko tàmbali tey jii nag la ñu joxe woon information bi nga xam ne ci sa kanam lañ ko waroon a jëkk jëkk yëkkatee kër googee ma nga ca Touba ca guy mbind tàmbali nañ ko jox nan nu ko fas nañ ko yéenee defar defar googee ñu koy defarit ñu ngi laaj te ñu ngi dajale Baara Njaay mii seere la ci sëñ Moodu Baara Jóob mii seere la ca muy loo xam ne ca mbaaru Mbàkke Kajoor ma la waroon a tàmbaleeb liggéey ñu dem ba mujj yàgg ñu ne nu mbaar moomu léegi danañ ko jox keneen kër lañ leen di jox ngeen liggéey ko fii ci guy mbind kon nag loola it na nga nu ca ñaanal te ñaanal mbooloo mi ba lañ ca bëgg ñu am ko ma dellu nag fi nga xam ne fi laay tëjee sëñ bi réew mi yàgg nañ fi ay mag lañu am réew boo fa defee ñeent fukki at defatoo fa dara du coono du bànneex du nooflaay du lenn loo xam ne war na la fee mën a téye sëñ bi ñu andi fi njaboot njaboot googu buñ leen indee ci biir réew mi kum mën a doon fii nekk ci biir saal bii kum mën a doon ci nun boo ko waxee ak boo ko waxut xam nga ne sag njaboot tëna la ana fan lan jëm ci liggs rekk lan jëm noonu buñ meloon ne ñoom duñ fi ñëw buñ meloon ne ñoom duñu fi juddoo ndax xam nañ li ci defari kayit xam nañ li ci këyit xam nañ li ci jàng xam nañ li ci jàngale kenn ku fi sa njaboot tawut amul mbooleem xale yi nga xam ne ñoo fi juddoo ak xale yi fi nekk koo ci gis mi ngi téléphone mille cinq cent mille sept cent euros ñun ñii seen baay yi amu ci kenn koo xam ne yaa ngi téléphone deux cent euros buñ meloon ne ñoom seeni ndey ci boppam sax duñu fi Ah, ngénte doom njaboot googu nag ñaan weesiwut ndax dañuy wax ne am na loo xam ne bu tabbee ci xolub gone mag mu teey tey boroomub xam-xam mooy jëfleenteeg moom jëfleenteeg googee ñuy soxla du dara lu dul ak ñaan comme ñun yàlla dogal na réew mii réew mu naqaree ñaane la ndax taxaw fi ci barab boo xam ne mooyu fa yàlla wala ca wet ga mooyu ñu fa yàlla jafe na lool te barab bu ñuy moye yàlla wala barab bu jege fu ñuy moye yàlla ñaan fa mu nangu mën naa am waaye dana jafe lool la muy laaj nun mënuñu ko duñu ko jaral kon ñoo ngi lay sant te di la gërëm nga ñaanal mbooloo mi wa salaamu aleykum wa rahmatullah